बेगान मयो ॾींदो leen di au début rek ñu ngi fi Seras fekk benn champion nga xamante ni kenn dootu ko présenté ci wàllum làmb bu ñu nee Tapha Mbeur ne ambianceur bu bu ñu nee Tapha Mbeur ne ku mën a bëree waaye bu bëree mu neex bu bàqoo mu neex xale parcel bi nuyu ko bu baax a baax bàyyi ko mu nuyu internet yi Tapha Mbeur maa ngi lay nuyu waaw onze billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di gërëm ñëpp ñi nga xam ne dañuy bëggee képp kuy bëggee Tapha Mbeur partout dans le monde laa lay ndax Tapha Mbeur sans frontière la di bëggee waa Leewtoo TV di bëggee sama mafia bi sama gars yi waa Seras ñi ngeen ma fekkal ni xam nga lu ma la wax rek Tapha Mbeur sans frontière ñoom Erne baa ma kenn ñoom xam nga jànkalaar góor sama doom yaay xam nga alimu ngóolu bi xabar daas bi calaaw bilaay alaaji baara bilaay uppa xam nga alaaji xam nga ak mala sama waay aada baaw ma kenn bari sëñ Fallou ñoom xam nga ñoom mala sama waay marju képp koo xam ne yaa ngi ci séraas bi rek ñoom nijaay alaaji bàyyi ñu kenn ñëpp rek ku fi nekk ak ku fi nekkul ndax mafia bi yaatu na waaw bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn di nuyu ñëpp di la nuyu yow tamit ku waa di wax dara jàmm tey nga jommi de yow yow Ndeye Mbacke borom Leewtoo bëgg erne wax ak yow. yow dawal ndànk rek. bilaay lan ngeen fekk ma samay biir ay nit rek. parce que tey Tapha Mbeur da nga gis mu toog rek fekk ko si ruxam doo xam ñan la bokkal ñan ñooy ay nitam ñii nii tey dañu bokk samay lépp ñi fekk fii su may bëree dañ may yóbbu làmb di dox ay coono yoo xam ne gars yi gisuñu leen dafa baax nag gars yi xam ñan ñooy Tapha Mbeur Tapha moom kese bëgg ñu xam ñan ñooy Tapha Mbeur ma ne la fekk ma sama biir gétt noonu la demee nag. nga dëkk parcelle di fréquenter Seras tey jii boo amoon boo amoon a combat mbër boo xam te ne Seras la dëkk comme yow. naka lay demee. waaw aw ma am bu nekk Seras. mais ci làmb nga nekk làmb làmb la ñëpp nga war a mun a bëri. Seras benn mbër laa muy Tafa mbër. bàcc séeraas na fi ne wala ah, bàcc séeraas na woote fi déggoo ma de. séeraas dafa am mbër mooy seen mbër kañ waxtaan. séeraas benn mbër laa am mooy tafa mbër maay ànd ak ñoom maay xëy ak ñoom maay liggéey ak ñoom ñuy xëy di dama ko ñëw. noonu la demee nag yow laaj ma leneen. waaye ban xarat yow may ñu xarat. barki sëñ Bamba uppa uppa la ñuy wax waaw ah, doole uppa kooku mooy uppa joxal micro bi voilà fii xam la yaa dégg ñun li ñuy wax ragaluñ ci dara ñun du xoolal gunge boobi suñu fierté la yaa dégg ndax xam nañ li ne ci moom yaa may dégg kii mooy loolu xamul delloo avance. loolu moom mooy loolu moom li mu wax loolu la de barke sëñ Touba daw ñu saale yaay ndeer kii suñ tuut tànk la su amee bis ñun ñëpp dañuy sonn waaw li ñu koy conseillé nag mooy na teel a tëdd fonk ay maam xam li koy xaar ci yoon la nekk daw ñu saale yaay ndeer de ñun ku ñu bëgg ñu bëgg la kuy ñëw ci ñun dañ lay bëgg ku ñu bëggul dañ ñoo noppal booy bi nag ci kaw ci kanam barke maam Seera calaawa ngi nii bu mag bi xabar daas bi dun xaaf cànd mbéer bu mag a mag bi calaw naajo baa nii taalibe Cheikh Umar bàyyi nii billaahi wallaahi kaana madam daal sukkum dukkum raas bi kanama tos ngóll bàyyi nii toog dafa di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur di sant tamit ñi fi teew ñëpp bég tamit ci yéen ak dérangement ak déplacement bi ngeen def ñëw fii tamit ci Seras ngeen ñëw tamit ci euh, fi nga xamante ne tamit ay nitu Tapha Mbeur dañ fee nekk ay am di jàmmam ñoo xamante ne bu jógee parcelle day ñëw Seras te bu ñëwee Seras ci ñun lay nekk te yaakaar naa ni tamit loolu ku gis mbaam bi passé tamit gis na tamit taxawaay tamit bi nga xamante ne moom lañ ci taxaw parce que tamit moo ñu ko ji suñu rakk la suñu gaayan la suñu lépp la kon nag boo leen ñëwee biir Seras ñu war fee na tamit benn émission loolu dañ ciy sant yàlla tamit bu baax a baax tamit waaw di leen tamit dalal jàmm tamit ci mbaar mi di leen dalal jàmm tamit ci gang bi di leen dalal jàmm tamit ci waa Seras waaw Mamor Anta Sali mooy nii bisimilah. dool ubbo ba pare. wala baari na për kenn mën a daa champion bu mag bi amul sëñ eh, ma lay xool ma la nga lay gis. garmi eh, baa ngi nii. bilaa walaay kii ko gisee sunu xol dafa sedd guy. champion la garmi la. noonu la demee moom nag pecc mu jëm déwén lay pecc quoi. jalul jalul jalul yàqamti. barki Serigne Bamba pecc mu jëm déwén jalul yàqamti de. yang yanga rek ngay def. barki Serigne Bamba war na yàlla ak yonent bi champion bu mag baa ñun kii lañ gëm. xam nga ndax lan nit ki am na fu mu lay teg wala am na fu mu lay gisee. yow chaque jour rek da xam ne ni kii sa nit la. te baax rek am solo aduna li ci des baax la rek te baax la woon. te mooy sunu champion nag te garmi la lii yombul ñaata at ñu ngi fi ñaata weer ñaata jour ñaata semaine mais ndeysaan xool moom mu andi ñu lii ñuy wax ci télé kon boog champion la garmi def na la nga xamante ni mooy loolu koo xamul nu ngi koy def barki Serigne Bamba bi laay dëgg la te xoolal kii ci kanam ci kaw ca kanam champion nga garmi nga yal na yàlla dolli xéwal ak ca mbër fomeere barki Serigne Bamba barki te xool kii fi ñu yaakaar ci moom ak liñ bëgg ci moom yàlla rek moo ko xam te yàlla dina ko defal xol bu rafet xol bu nice moom am na ko boole bokkoo xam am na ko te yàlla da koy may ndam barki Serigne Bamba kii mooy suñu champion barki yàlla kontaan na doxal nees yàq émission bi lan nga wax Tapha Mbeur Tapha sama waay la sama xarit la kii fii mën na fi njëkk a xam yaa ngi dégg affaire làmb boolewuñu quoi dem nañ mu nekk xam nga ay ay mbokk ah, ay dret yaa ngi dégg amaana Seras bëri na ay mbër man fii amu fa kenn xaar ma yàlla Seras autoroute ba daral ba biir Salba yëpp booy fi nekk yëpp samay gaañal lan yaa ngi dégg ñëpp samay gaañal lan ba Pikine sama koñ bi ma dëkk au moins kenn xaar ma yàlla Seras ante kii sama gaañal la nekkul affaire làmb nekkul affaire làmb sama gaañal la yëg bi mu am yaa ngi dégg yëg-yëg bi am ci ñun moo tax mu bàyyi parcelle fi mu dëkk ay camburen yëpp ñëw fii na fi lay defee émission mais nag man li ma koy conseillé mooy làmb yaa ngi dégg na loo xamante ni mënul ànd ak moom fi mu toll nii ci làmb xam nga lan la war a def hmm. yokk ay entraînement am yaa ngi dégg hmm. wàññi ay yenn détails ay tiktok ak ay fu nekk nga bëgg fa dem ak yooyu noonu da nga koy wàññi arrêté yooyu nekk sa entraînement parce que am na ay boo yoo xamante ni yow daan la rek leen bëgg arrêté la rek leen bëgg mais yow loolu pour nga mën ko défendre fa nga entraîné pare lamb sa instant da ngaa war a pare fréquentation yu bëri da nga ko war a daw wàññi ko xam ne instant bi am na lu nekk sa kanam dañ koy yaakaar yaa ngi dégg fi nga ko teg nii nag foofu la yàlla baax na yow yokkal say entraînement rek jox ñëpp cër. waaw yow amoo fee sens sens interdit yow mooy loolu borom yoon nga nekkal si jàmm. waaw noonu la demee nag. ayca moom fi mu daanelee rek fa laa yëkkatee dégg nga ay kàddoom. waaw dégg naa ko bu baax. sama doomu ndey la sama lépp la mom yaakaar naa ni maag mom du sax làmb. waaw dund nañ ñeneen ñu romb làmb maam fii nii famille man ak ñoom du làmb xam bu doon làmb làmb làmb la ñuy dund. waaw mais maa ñoom famille la. ndax li ñuy dund à part làmb moo gën a kawe. relation humaine nit ak nit. jëflante sekk jàmm. dama lante loolooy lépp te loolu lañu sekk te moo ëpp làmb. kon tey man saa bu ma rëccee rek maa ngi fii. fii ñu ma ñu ma xam sax xamee nañ ma Seras. ma ñibbi sax nit naa ma chaque jour dama lay gis Seras. Mhm. waaw da nga sax man fii la sama kër. mais am naa fi sama kër ndax samay deret ñoo fi nekk. ma leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm parce que olof moo ne nit ki soo xamul nit koo xamul noo koy def nim la def a tax moo tax saa bu ma rëccee parcelle xam nañu maa ngi fii donc dama leen sant rek di leen gërëm di wax chaque jour li ma bëgg mooy ñoom li ñu bëgg mooy ma gën a rey sam bopp fi mbër yi teg seen tànk ci kaw a kaw ma teg fa sama tànk bi te fekk teguma fa sama tànk bi amaguma li ma bëgg te du ma tegi sama tànk incha allah. ay du tegi tànkam ci lan la ne gëj koo gis ci nga ne. nekk sama ruq di entraîner ànd ak samay nit. ànd ak sama coach coach gi mu may teg lu métti waaw ak sama waa écrit mm-hmm. loolu moo ci loolu laa nekk di xaar komba moo tax xam ma gaa yi gëj ma gis mm-hmm. mais nekkuma ci lan lu dul nekk suma ruq di toj samay bopp jinax ci sa ruq boobu nga nekk fa lañ lay génnee ndax buñu nee mbër am ñu bari ñuy réeree mbir mbër yow ci sa ci sa du ma ne sax sa xam-xam mais yow sa jëm bopp yow ci sa xel lan nga jàppee mbër lan mooy lan mooy mbër waaw mbër liggéey la comme ni nga ne ouvrier ne maçon xam nga kook saabu bu xëyee mi ngi si liggéeyam mbër ñun saabu ñu xëyee ñu ngi suñuy entraînement ndax dañ ko def métier war si tedd teral si suñuy famille teral si suñuy xarit teral si suñuy am ni jàmm képp koo xam ne ne rek xaj na si daf see war a bokk kon loolu du caaxaan waaw loolu mooy mbër mbër mooy ki nga xamante ne day bëre gëm ko fonk ko def lépp lu mu laaj mu koy def koo koy mbër ñu jàpp ne mbër oto bu pan la rek soo ko poussé du mës a wàcc parce que dañuy gis mbër yi bu ñëwee ba siiw ci benn instant yi dañuy changé écurie dem beneen écurie jógee écurie bi dem beneen écurie sa point de vue lan la ci doon. waaw mais Sadio Mané ngi nii ñu naan ko na jógee Liverpool écurie du dara mais say relation nit ak humain loolu mooy li ma la wax sànq relation nit ak loolu du làmb loolu diggante nit ak nit la loolu la ñu sekk mais kanta ay boo ko poussé bu tàkkee yooyu dañ koy wax rek nit tekki na fi te du mbër du dara fàtte ñi mu àndaloon maanaam tey jikko bi ma neex ci sama gaay yi fii waa Seras rek mooy lan ñoom xamuñu yaay kan yow la ñuy bëgg en tant que nit tey bu doon bu doon loolu mun parcelle laa nekk ñii ñu ngi dëkk Pikine ñii ñu ngi dëkk Kër Massar ñii ñu ngi Géejawaay maanaam fii façon localité bi bu nekk mu ngi mi ngi Seras mais tey ñoom nit dañ lay jàpp en tant que li nga leen wan loolu man noonu laa gën a bëgg si nit nga jàpp nit ki lim la wan te ñoom noonu lañ mel man loolu laa mel man xooluma kii mooy kii xooluma kee mooy kële nit ku nekk mu ma la jàppee nga téye ma def ma ni sa bopp dama lay def ni sa bopp mhm. li tax tey ma ñeme leen waaw dund ak ñoom lu loo xam te ne sax du làmb mhm. dund ñoom dëgg parce que lu luñ ma won la dañ ma bëgg te yàlla tax ma safoo leen ndam di leen ndamoo nag mhm. ma waral tey ma ñëw pour xamal gaa gars man ñii ñi samay deret lañ dama leen di ndamoo fépp fu ma jëm barki sëñ bu buñ ne lu lay neex dangay gis loo naq la moo la nga xam ne neexu la ci nit wala nit ku ko mel yow doo am moom benn right waaw mooy koo xam ne dafa foo rek kuy signaler gauche jaar droite man loolu rek laay bañ moo tax boo ma fekkee si ay waaw ci ay waaw indo afisa ka booy dem football indo te loolu amul fii fii ay Baay fi nekk ay góor yàlla tigi fii dañu waxante dëgg des fois xoolal ñu jàkkaarloo man ma nga yaakaar ne moo la sam waay man gaan musuma entraîné calaaw des fois mu tiim ma ne ma eh dégluwuma li ngay wax dal entraîné demal entraîné ji liñ bëgg du lii xeeb nañ yii ay nees ma la sam waay ñëpp kon loolu man moo tax ma jàpp leen ay ubba ay baari barki alxuraan kon ñooñ noonu tey damaa xam ne ñoo may wax dëgg moo tax ma ñooñ laay fréquenté mais bugguma koy foo koo xam ne su ma taxawee nga ne nugum su ma demee nga ne xee déedéet nees mi des fois dañuy xëccante ba nga naan kii dañoo bëgg a xeex fekk ne du dara ñooy àndaal léegi jaar nii eh, ma dal si kaw mu yëngal telaaw ñëpp barki sëñ Fallou moo tax kolal man ku foo rek moo ma yéem. ban relation nga am ak mbëri am nga xaritu mbër wala. waaw mbër yëpp jàmm lañ sekk eh, parce que man man maay mbëru mbër yi man mbëri dañ maa bëgg. yaay mbëru. maay yi xaritu paa mère ak gone yi. Mm-hmm. man maay mbëru mbër yi. Mm-hmm. xaritu yi ak gone yi. man mbër yëpp ma bëgg même samay adversaire dañ may bëgg man. Mm-hmm. parce que man ma la sam waay man ma fi a seras laa man damaa neex déggoo ma ne man damaa neex. wala baadi loolu du dëgg. wala ah, baadi dëgg la kay acca mbër. ñun ku ñu gis bëgguñu. kii lañ gëm de. ñëw ku la gis bëgg la baadi mu lay maas. dafa mbër balaa balaa ñu yàqalul dara. dañuy dañuy delluwaat ci ginnaaw rek ñu gis sa dernier combat sa dernier sortie bi nga génn ñu ne ki mu jël. ki mu jël dafa diis ki mu jël dafa mbar war koo jël àdduna bi mën naa ne bu dee bu ñu nee 100 pour cent ci axlu làmb 90 pour cent bi dañoo ne dafa mbar fi mu dugg baaxu nga dugg ci sa xel lan nga doon demee waaye man droit des arènes laa soxla man instant nii ay kii dafa diis ak yooyu yëpp dégguma ko man xam la laa dégg ñu toog ñu ne Tapha Mbeur mooy bëreeg roi des arènes bi bis sàngam fekk aw ma loolu adversaire loo ma si wax dégluwu ma ko parce que li uppa wax na la ko sàng man du ma ragal anduma ak ay ragal du ma toog ci biir ay ragal barki sëñ Fallou man bu ma ragalee sax tabaski duñ jënd xar man la ñuy tabaskee <laughs> man bés bu ma ragalee ñu rend ma te mosoo maa ñëwul làmb ñu ne Tapha Mbeur tey dañoo gis si moom ragal xanaa kay musul am bu ma ñu rey ma xam nga la ngay dégg ay noo dafa nangam dafa li mu def dafa ëpp dafa nii dafa naa dafa naagu wala dafa war a wàññi tension bi wala yooyu ngay dégg mais man li ma gëm mooy góor lu yërëm góor ku jekku sa morom yëy te léegi damaa ñëwaat ci beneen domaine góor du ragal góor góor du yërëm góor laa jubee ku jekku sa morom yëy ëpp ma ñëwaat ne ko góor du ragal góor góor bu ragalee góor rek nañ ko rendi te buñ ko rendee maa koy fees. ma yow dégg nga ma xanaa maa koy tàggatee yow yaa koy tàggatee. saabu juróom-ñaari saam toj ko jul saraxe. ko xéwlu dañ koy saraxe. dama am nga ñëw biir arène nationale indi fa ambiance boo xamante ni kenn xamul nu mu toll li nga bàqu keroog lan la. wóol wóol. maa defar biir bi laxas ko. dama am nga <laughs> yéen jeexal ngeen ko di. non ragal jot di koy jeexal ragal baaxul. ragal yëpp yàlla la. bari sëñ Bamba Seras amul ragal de. Bamba sa ambiance boobu li nga baaxu keroog lan la la. mu yow di fréquenté Seras loolu rek mënul nekk tapet. Seras ay xat koor ñoo fi nekk. waaye yow ay. fii bu fi ñëwoon nekk ragal day dajeeku. barki borom njaarim dañ koo liir ba xam ne ci ñun la bokk li ñu sax la sax moo doon ñu bàyyi ko fii loolu la géem bi demee. ragal du ragal du dëgg Seras bi di keroog stade lan la ambiance. waaye yow ñun nee naa la Seras mooy làmb ñun nitu làmb lañ xam nga dafa am ñoo xamante ne ay bërekat lañ am ay mbër ñun mbër moo nekk ci ñun boo gisee man su ma génnee dañ may bëgg mais man ambiance mooy sama plat préféré naas kay man ambiance mooy sama plat préféré mhm. waaw damay yëngal. damay ambiance damay damay damay. dama war a choix bàkku bi ñaakaay dal jàmm. dama war a choix bàkku bi keroog. loolu. l'appétit nga laal fii laal fii non yow xam nga ne l'appétit vient en mangeant barki sëñ Bamba non yow ñun tous dañuy ñëw ne man samay tëggkat dañ naan ni la dañuy fenn tëgg ma ne nii laa koy feccee te su ma ko feccee dëkk bi toj mm-hmm. loolu ci ñu la nekk man déggatuma man damaa romb dégg damaa fekkee fekkee du ma romb dégg mbëri mbëri ñoom ne dañoo dégg nii di dégg déggulu xanaa booy dégg ba ki fekkee ñëw da ngay puus. barki sëñ Bamba mu yow luy loolu. ñu ñëw fi nga nekk xamante ni mën naa ne mbër yëpp bi nga daanee Liss Ndiago dañoo tëbandoo ñëw ci Tapha Mbeur ku nekk Tapha Mbeur nga bëgg arrêté ngir tour bi Tapha Mbeur yor ñu ñu ko kan moo nekk sa kanam fu mu nekk. booy dañoo war a def ndànk rek man ma fiyaa bi ne sama ginnaaw dafa dëgër de jamono jii nii xaw ma nag avant mais léegi bëreeg Tapha Mbeur du yomb de te booy bu jug nag bu la neexee tëkk ko mais bëreeg ñun moo jafe mm. te boo ko jëlee dina la xat guddi yi mu jëm ñun li suñu kanam duñ ko lijjanti. kan moo taxaw suñu kanam ñu effacé ko. kan moo nekk sa kanam fu mu nekk dama benn mbër muy jàppee boppam saajo maane di ma jàppee Sané Maajo. fii koo fi tudd mu jàppee boppam saajo maane bëgg la jàppee saane Maajo. te coow bi nga am amu ko. victoire yi nga am amu ko. munul am mbër boo la ëpp coow. bëgg nga tudd ko mu naan diw man lay tudd. na ñoom ñëpp dem dallu ji. maay seen Mouhamed Ndaw déggoo ma de yooyu ñu tuddul ay mbër ngay mer di bañ mbëri lan moo ñoom ñooy toog di aj seeni mbagg après parce que seen victoire la borom coow dëgg man ba man coow la de. non yow rek problème nga man rek buru laa problème nga. te gars yi génnaguñ waa Seras. yow rek nga. gars yi génnaguñ de. waaw kon nag mala sam waaye amateurs yi ñu ngi may xaar supporters yi ñu ngi may xaar mm-hmm. man promoteurs yi laay xaar. xaaroo xaaruma benn mbër. man promoteur yi man ñoom laay xaar. mais promoteur balaa nga leen di xaar foog ñu gis adversaire parce que ñu lay wax ay njaay tin ay mbër yu bari ngay bañ. ay yow dama ne la ay dama ne la bul ñu ay njaay tin kan mooy njaay tin kuy kooku. waaw ah, mu ñu sonal ak ay njaay tin. nañu wax ay mbër ñoo xamante ni dañoo am coow am dayoo. waaye nañu wax waaye kooku du mbër waaye gaañ ah. ñoo mën a def li ñu def si laam ba léegi di arrière. saa bu ñuy bëree dañu xool lu suñu kanam. xeeru ngor moo doon bëri démb de xeeru xeeru ngor moo doon bëri démb. dama ne la man ay Modou Anta laa war a bëreel bu dee dégg nga olof. bu Thiès. loolu mooy làmb ji. loolu eh. fii de ay dix tafa mbër fi nekk ne nii da ngay tafa mbër soxna si calaaw ko ma ci liw song la calaaw ngi nii man ragaluma li may wax damay dugg si bi rek man soxna si dam bëgg nga siggi nga xool ma man ngay waxal calaaw ok maa ngi nii sama ñaari bët nii di la nii calaaw ngay waxal ku ma xamul tamit dégg nga ma. waaye Calaaw bëri ma du di nga xam Calaaw mi mooy kan rek kii xam na xam na mbëri ñi mu war a bëreel mer la fanaanoo moom warul woon cité ñun ñii ñoo war a cité yow kan kan nga cité fu mu ne kan gis fu ne moo moo ant Anta lamb la à part Modou Anta kan nga gis waaw foofu nga toll kan nga gis foofu nga toll kan ngeen ñeme sax laa wax kan ngeen ñeme dañoo war a bëre ñoom ñaar sando bi sages daan waaw yow waru ñoo mën a bëre ay naataangoom lañu eh. moom mii bu fekkee mënul daan ñooñu na na bàyyi làmb man lu lu tar laa bëgg lu tàng jër man Haalpulaar laa doomu Fuutanke laa bëgguñu lu yomb këlëmal Tapha Mbeur jël jël micro bi kii yooyu li ñu naan bët yenuwul waaye xam na li bopp attan yow pare nga pour bëri euh, Moussa Ndoye dama ne la su ma fi bàyyee Moussa Ndoye wala ma am ku may sóoraale li kii wax ma tekki ngemb li noppal leen ñoom ñu am jàmm man laamu dama si dugg pour nekk roi des arènes bu doon pour bëre bu doon pour bëre nii rek après di bàyyi xoolal du ma dugg Moussa Ndoye Modou Anta man ñooñu ñoo ma tax a si lamb pour ma daan leen nekk roi des arènes bëre ñi si kaw xam la moo dama tudd leen parce que pour yéeg si kaw foo nga jaar ci escalier bi kese mais man ñooñu toog ma leen bët parce que man xam la laa teg sa mbët couronne bi mbër yi téye. couronne baa ngi parcelle de fu mu ne nii. du fa jóg. kon noo koy jëlee. waaw man la sama waay moom da koy paase mais nag man sama parcours dama koy def xam man dama am parcours boo xam te ne moom la ma fa jaar def ko dem. dafa am bu ñu ko gisee muy wax confiance bi muy àndal. man ah, wax ku xamul xamul. mais man xam naa xam naa ñu nekk sama ginnaaw. doole bi wala mystique bi. waaw yow luy loolu. lépp ngi ci doole bi nga yaakaar wala dafa am lépp ci biir loo xalaat. Tapha Mbeur bul nga may tontu. li am non jeexal na wax. Mbeur mooy lu ku pare si lépp. sama doole man mooy sama xarit su ma jaaxee ba làmb ko sama xel dal. kii xale la day eh, man toolu ma nii de man xale laa. bilaay man ngóolu bu mag laa man tollu ma nii. xaboon gu mag gaa ngi nii xaboon gi. xaboon gu mag gi parce que alxuraanul karim. eh maa lay maa lay seen. man bokkuma ak bagara yuy caar. man ngóolu laa du ma bagara buy caar. caar loolu. loolu yow lees waxul. ma ma jël après i comprendre dégg daaj yi dinañ xam. ma dégguma daaj man. ñun ko ñu menuisier lañ dëkk. loolu moo ñu sonal dégg daaj moo ñu sonal. ñu ngi dugg ci biir làmb bi dafa am bër bu ñu waxee dafa am mu xataraayu ne dafa am bër mu ne Moussa Ndoye man maa ngi tiit pareegu ma mu ne Modou Anta comme dafa am bër moom am na fitu def loolu moom. man du ma ci wax yow xaa sa bopp bi nekku fi. sama bopp bi fii nii damaa tiit di. xaa xamoo yow ma maay kan ak ñan laay àndal ak ñan nga ma fekkal. waaw ah, man su ma ragalee loolu ñu. ñu fi daaw ma waay ñu tis ma léegi. ok léegi ah noonu añ ñu ñëpp mais xaar leen léegi ñaari actualité dafa am lam ci lam fu ne nii nga dëkk kenn ki ñu gis combat Sokh ak Franc saa bi ñëpp di ko waxtaanee. naka gisee affiche man Baye war a am combat. combat waxal si Tapha waay ngir yàlla. dafa actualité lamb lañu non leen ko. non affiche bi laay laaj naka ko gisee Tapha Mbeur bañal loolu. affiche bu neex la maa ngi ñaanal Franc ñoo dëkk waaw mais man ma war a am combat. mais léegi nga bëgg xanaa gis nga. kan laa bëgg si la ki ñu yóbbaale fekk mu taxaw ci kaw tali bi kan nga bëgg fu mu ne nii. man wax naa la ki ma bëgg Modou Anta ak Moussa Ndoye ñooñu nañ ñëw ñu bëre. lan nga leen di wax ñoom ñaar. dama ne leen ñu dëggal seen bopp mënuñu bëre mbër mu ëpp coow fii affaire bi mbaxalum xeer la rek njëkk a sóor taxul a njëkk a ñorle. waaw ku ma si jëlul tey di ma jël ëllëg. mais man li jëntiwu ma yi gars yi di wax nii daa am lu ma gëm quoi waaw lu muy gën a dem man nee naa la toolu ma man ngóolu laa de man déggoo ma de. ma bon gu mag gaa ngi nii. yow yow yaay doog a def émission yow da nga doon def def lu émission rek. maa ngi soog a def émission kañ lii kay mosuma gis sama. yaay doog a def émission yow. invité benn mbër sans ne fi sans mbër. ay taxaw yu mais tafa mbër yu bëri nga fekk. ay tafa yu bëri sigi sigi sigi. da ngaa ñëw ci foo xamante ne milieu làmb la. ku ne Seras xam ni Seras milieu lamb la te ñi fi nekk ku ci nekk daa jaar ci làmb man mii damaa jaar ci làmb ñii ñëpp ku ci nekk jaar nga ci làmb. léegi ma laaj la dara suñu garant taxaw ci ginnaaw tamit la même chose. waaw ah, même ñu ma laaj la. gën a jege gi a yee. ñu ko ñu ko gis si écran la yow foo génnee ubba. da ngaa rek ay nit da baax rek. gën a jege gën a yey xam dafa mbër yaa ngi war mën a gën a xam kii boo mënoo xoolal faay faayam maanaam loo xam ne da ko tële lan lay doon dégguma boo noo xool kii dégguma loolu waaye dégguma ni boo doon xoolal faay faayam maanaam loo xam ne da koo tële lan nga ñu koy wax yow wax dëgg yàlla non fii kenn matut wax dëgg yàlla dama bëgg nga déglu ma man ngay waxal du man nga poser question dama bëgg a wax xamal benn affaire man lu ma bëgg wax nit ki dama ko koy wax man nit ki su may ànd ak yow ci dëgg laa laay ànd ak yow moom mii xam na loolu ci man mm-hmm. du ma ko raayal kanamam mm-hmm. su ma gisee lu ma neexul ci moom dama ko koy wax parce que man làkkat laa man xaalpulaar laa pël laa du ma tirise mm-hmm. man pël laa du ma tirise lu ma bëgg a wax ci doomu aadama dama ko koy wax te tamit dara fëkkuma ci àdduna li tax ma ànd ak moom wala lu tax tamit ma nekk ak moom wala tamit lu tax may sonn ci moom moom moo ma ko woon su ma demee ba gisatuma ko ci moom ma ma tege ko ne dem xooli leneen que munu maa may. man munu ma may mais dafa am ci loo xamante ne ci loolu la ñuy ànd man damaa suur dara fëkku ma wallaahi wal azim. li soxna wax mu dindi daal wala lay man li ma koy naan daal xam lan laa koy wax na yokk entraînement te xam naa ne muy ci. na gën a yokk liggéey loolu lañ ko sant sant ñu ko leneen. bu combat taxawee li ci des ñun ñoo koy gérer fu ñuy war a dem ñoo fay dem ba fuutaak yëpp maa fay dem. <laughs> loolu leer na joxal ma micro Tapha Mbeur dugg jéggi dex yi dem. waaw yow xanaa déggoo li ma la wax. na combat taxawaat laa bëgg kii mooy dugg Fuuta war a sooge Añam Celaaw. li ma wax mooy fi damaa noore gala alla ay yi ma yow ma ndaaku ngonda an woni mborodi laay mi gëm mborodi de sama sama sama question balaa may balaa ma tëj émission bi rek lan mooy sa dafa mel ni ku commencé jaxasoo lan mooy sa man man dara moo ma jaxase man ci lamb ji laa nekk yëpp yow lan mooy sa dafa principe fii boo fi duggee caagi rek soo ngay ah, doon de ngay jaxase rek dóor ca laaw ca laaw laaj naa ko goo nangu maa léegi lan mooy sa dafa principal yow sama défaut principal mooy man lu tax mënu maa ragal man man la ma tax mënumaa tiit man man loolu mooy sama défaut man man lu tax mënumaa tiit mënumaa ragal lan lu tax mënumaa xof man loolu mooy sama defo à part loolu amuma leneen lu may bàyyi xel ci defo man défaut benn laa am mooy lan lu tax dafa mbër du ragal du xaf. Mansour leer na moom lu ma aw oh, ma lu may tiit. balaa may tàggatoo man ragaluma sax dee. yow xanaa yow doo dégg. dafa mbër ñun waxaluñu sax dee masa mala ak nit. man kañ tëj naa émission dafa mbër dañuy dégg naa. toujours ñu dajeeg dee ñun. dafa mbër. na ko bégee mën nañu jaajëf mu dem ñu dem. ngeen avancé chaque jour ñu dajeeg dee rombanteeg moom dem. rombante leen moo gën dafa mbër. yow mi xamul dee yow yaa ragal dee dafa mbër. génn na Dakar génn na Mbour génn na Thiès taxi na jabar dëgg la wala déet. ma ne ma ne chacun pour soi Dieu pour tous lijjanti leneen. dafa mbër di nga nga génn fii yëpp zone bi yëpp fan nga tax xëjee jabar Tapha Mbeur. waaye yow dama ne doo lijjanti eh, sa problème yow. waxal balaa ma koy wax dama lay boole de waxal waaw ma ci loolu. waxal ñi bo ñi bokkoon ñi bokkoon may ma la gën a kii daam ñu bokkoon ci rang bi wocc leen fi léegi wax rang bi ñëpp lay bàyyi am na jabar. waaye ma ne man sam papa daa bëgg booy bàyyi ma mara mu taxal ma jabar sax gars yi déggoo ma ne ceew del kesel. njool mu ndaw laa am te xoolal bu ñëwee garab saan laa koy njëkk a jox ku ngeen laa taxee jabar bu ñëwee nee naa booy damay njëkk a rey saani naa ko jox garabu sant dafa xaw a tuuti da ngaa neex rek Koungheul laa takkay jawar booy yëpp ma la sa waay ne la ñu maasi njool mu ndaw mi mi ngi mi ngi jóge Koungheul sama papa na ma jabar dem leen ngeen toog maa génnoon ne ma jabar damay feebar de saa je suis wér naa. xanaa léegi wér na ma jabar ak sama yaay Koungheul njool mu ndaw mi déggoo ma de. xanaa léegi wér nga. bu ñëwee garabu saan laa koy njëkk a jëndal mu naan saan yi laay rey. ay téeméer kese lañ ma may yow déggoo naa teemedel kesel ngel suwa suus anda cuuraay leecel jëmel talla njaganaay cay yigiri yigiri cay yegari yegari njool mu ndaw lañ ko may njool mu ndaw bi cay yigiri yigiri cay yegari yegari kon lu ñuy wax Serigne Diop dafa ne woon après koor gi Tapha Mbeur la wax yow après tabaski réew mi dana daanu yow xanaa déggoo looy <laughs> tàggatoo <laughs> après tabaski réew mi dana màbb du daanu ay way tàggatoo du leen lu dul bëggee sama mafia bi rek gars yi di leen nuyu di leen sant di wax ma la sama waay lii maam tey ba àjjana àjjana ni lañu cee waatee nii di gérer parce que xam la moo tax xol yëpp benn la te nee la yàlla dafa ànd ak borom xol yu ànd yi waaw kon maa ngi sant séras bi yëpp cat ba cat biir saal beeg ñëpp ma kenn tey boo ñii nii ñooy séras boo tuddee ñii tudd nga ñëpp ba si biir saal yi beeg ñëpp kon tey bu ñu seeraanee gis gaa xam nañ Tapha Mbeur delloo na njugal waa séras di leen wax ne aw ma ñorul ñoom di leen tàllaat samay loxo seen doom laa di nuyuwaat képp koo xam ne rek dafa muy bëggee di wax promoteur yi man maa leen di xaar ndax gars yi man la ñuy xaar gars yi damay ñëw ne leen taxaw na ñoom ñu jóg waaw bu ñu bëggee bés journée ambiance làmb bëre gis mbër bu pare dañ tëgg Tapha mbër mu yëngal gësam te ñu mën a laaj bu dul ñoom ñu ne ñu toog xaar ne ko ñu fi di bëre benn bagara buy caar déggoo ma de soxla wuñ ko sax. Aïcha dama koy bëggee bu baax Tapha Mbeur la woon ah xale parcelle bi nee leen borom ambiance bi show bi bëggee bu baax a baax a baax nee ko moom moom dama koy ñaanal jàmm naan ko heureux ménage en plus waaye nuyu ñi ma fekk ñëpp leen ci jabar dafa neex feebar de <laughs> Tapha Mbeur di wax <laughs> bëgg naa ci yéen bu baax baax. ah yow daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV leen jox ñaanal jàmm te ko sàkku ci yéen.